Salam Allo Dakar TV l'observateur ñu def oh la la la la nga dañ ko Angleterre ci Sénégal yi bari na ci l'observateur dem enquête la liste noire du président financement de la campagne électorale waxuma ko xol enquête yene kay suma ci enquête libération libération ñu révélation sur une barbarie Manam Issa Cham arrêté aux États-Unis Je yene yéen pas bi nga libération moko ko wax su ma libération damay dem critique critique ne les deux cas indépendants le 4 avril administre politique Manam Khalifa Sal Karim Wade mom lañ def fi ci critique su ma ci critique vous dem ci Dakar Times Dakar Times ñu Mali, Burkina, le CG, Sahel lance son chemin en fer Si vous Dakar Times les Échos les Échos 11 gangsters angol en cagoule sèment le terreur à la station Sahel Manam, 11 gangsters et xamante dañu ñuul ay cagoule ngi le terreur ci station Sahel yi de les Échos direct info direct info ñu daal def la tête du DG de la douane sur la table du Macky Bop DG douane mi ngi ci table Macky la ilaha illallah table Macky mbokk Moki, mbokk Sénégal su ma jógee ci loolu damay daal dem ci nga ni la turbine ñu def PS et AFP les grands perdants Manam, PS ak AFP les grands perdants waxuma yene kay a kaay Bougane Gueye ko wax suma ma fofu damay da dem ci Sud Quotidien, le PDS cherche sa voix. Mamour Seydi Ndiaye, journaliste politique, analyste, le PDS un parti en fin de cycle Manam PDS dal toll na foo xamante dafa wara a mbok Sénégal neexul ba neexul waye ki nga xamanteni moy momi Kébé momi Kébé dal mi ngi ci lu bax momi Touba yaay borom kuy dugg Touba na la tàggu waye damal waye momi yaa ngi ci lu bax bye bye ba suba